Bonjour très chers internautes de Guédiawaye Info TV. Si vous voyez le décor, la beauté du sable, mais aussi le dégagement intempestif des vagues, vous allez vous rendre compte que nous sommes en pleine mer. Aujourd'hui, nous sommes ici à la découverte du mafia de l'INSEE numéro 2, surnommé Mafia Kra. Un leader sans combat se contente de réunir les jeunes espoirs de Guédiawaye pour entretenir avec, elle, avec eux des séances d'entraînement atroces tous les matins pour qu'ils puissent préparer leur combat dans la plus belle des manières. Mesdames et messieurs, ce champion n'est plus à présenter. Il est surnommé le technicien du Un, jeune garçon qui a fini de faire ses preuves au sein de l'arène. Sa technicité, sa maturité, mais également son sens élevé d'irresponsable et du devoir n'est plus à démontrer. Il est le tombeur de Fogele, il est le tombeur de Ahmed Dem, mais aussi il est le tombeur de Yanda. Le technicien du est connu et respecté partout à travers l'arène, de, de par sa modestie, mais également de par sa maturité. Sa serait aussi n'est plus à prouver, comme je l'ai dit tantôt. Monsieur Dame, comme à l'accoutumée, permettez-moi de faire une transition dans la langue de Kocc Barma. Pour qu'un yi dit, ngi leen nuyu di leen ziar boo leen décor bi fi ñu nekk nii tey ngeen xool suuf si ni mu taaroo ak vague yi nga xamante mi dégagé sans cesse ngeen xam en pleine mer. Nous avons découvert découvrir li nga la mafia à Mafia Kara ñu xam ko aussi la Mafia à l'insee numéro 2 mu doon mbër moo xamante ni comme ni nga ko waxee sànq ci nasaraan rek. jamono yi amul combat mais à chaque fois day sacrifié wu di yeewu di ànd ak ay rakkam ñi nga xam day waaj ak ñoom jur mën a egg seen bis waajal ko ci anam yu mu gën a rafetee mu doon daanaan boo xam aussi kenn doon ko présenté parce que aar bi gars def da koo mën kenn dàq ko ko mu mën a bëree lool di liggéey aussi lu metti daa doon bër moo xam ko am personnalité am fulla xam am ñeme responsabilité loola waral tey muy def lii muy numéro 2 ci kanam tuuti ñu daal dem jël quelques relations quelques réactions gars yi doog ci waxtaan bi loolu la. raateel koy tuddee. raateel baykara. laa koy tuddee. raateel ramadiyaa laa koy tuddee nekk ak Perkra ku nekk dégg nga mafia Alioune Seye bi ak ni nga xamante ne moom la xale yi boole loolu yëpp moom moo ko waral mu doon ki nga xamante ne moom moo am initiative boobu daal koy xelal Alioune Seye numéro 2 mu daal ci taxaw def ko per ñu ngi lay nuyu Perkra. waaw siyaanal la Max naka liggéey mbaa yéen a ngi ci jàmm. càndum <laughs> la yéen ànd waaw ñu ngi lay siyaar bu baax a baax a baax. père ñu gis aussi mafia Alioune Seye 2 bi mu doo am solo trop donc xale yëpp di ci liggéey lu métti aussi lan moo waral nga am xalaat boobu. waaw xam nga xale yi suñu rakk lañ yàgg nañoo ak ñoom ñoo nag sport dañ ko yàgg bëgg ah gis nañ ñu ngi góorgóorlu si làmb ji te mooy manqué na si ñoom lool. ah li ñu amako su néew na ñu bokk ñoom rek saa yu ñu jullee fajar ba pare rek ñu fëgg leen ñu jóg ànd ak ñoom liggéey bëgg ñu am ay ndam rek loolu moo waral lii quoi waaw. ci loxo Alioune Seye 2 moo waral tamit nga jox ko responsabilité boobu. waaw jom ak te soxorul xool bu yaatu la am li mu li mu bëgg a yenn sax àttanu ko moo tax ñu jël lépp te ko ci ndax nit ku euh, nangoo sonn attan ñëpp rek moo neex a jiital keneen koo ko defoon rek du dem ndax day jël nii bedd ñee te ñëpp ci bokk bàyyiwuñ kenn quoi dafa war a rafet daal jàppale xale yëpp moo ñu tax a jóg waaw. am na solo léegi lan ngay tàggatoo ak ban message ngay lancé ñu am xam te ñu bokk ci Mafia ak mbëru géejuwaay yëpp daal en général. waaw mbëru seen gannaaw fa lañ dëkk moom la ñuy tiitaroo ci kaw ba suuf lu commencé ci Balla Gaye 2 Lac de Guiers ak ñi si sopp ñëpp ba ñëw si écurie Walo bi ah moom mooy chef moom mooy numéro un liggéey bi nag moo ko mayul temps bi ba mënul teewe lépp lépp lépp waaye mooy lépp ndaxte mooy magu xale yi moo yor lépp ah bu gannaaw loolu tamit comme ñee ñu ngi ci kaw moom xale yi tamit ñu ànd ñoom ci suuf rek saa yu ñu la fajar fëgg leen a jóg leen jiital leen ñu àndandoo liggéey yàlla leen may ndam loolu lañ bëgg mu jëm sa kanam ba ni téye lamb bi seen loxo incha allah waaw jërëjëf merci beaucoup. waa Thiandoum ñu lay fay di la remercier bu baax ma fi baa nii rek comme ni fi fekk chaque jour je fais ñu ngi si pour le matin au soir liggéey jour ñu ngi si comme ni ko fekkee nii ma fi yaa Kara alias Dias. ziar naa la dund bu waaye sant alhamdulilah sant ren ma fi yaa baa ngi nii nekk si ginnaaw Alioune Seye 2 ak si ginnaaw Kara Ndiaye. waaw topp ndigal rek duñ ci leen nag ay genn rek bopp yaa ngi nii waaw. Youssou Ndour naa la nag. Ah, maa ngi lay fay bu baax waaw Guèye waay di leen sant bu baax a baax a baax waaw ah, mafia baa ngi nii boobu tey boo déggee mbari ku daan naa maa ngi gërëm mafia jazz bi mu nekk nii di sant nag suñu père Kara bu baax a baax ndax lépp moom la mooy taal sa jour Rome ak ak Grand As ñooñu ñun mënuñu leen fay waaw. Madji Madji maa lay ziar nag. Eh, ñu ngi delloo ziar Guédiawaye TV. ngi sant ah mafia bi ah gis nga kon ni rek lañ koy jàppoo sak matin ah suñu ginaaw mag ali sey de ak Kara suñu tons ah Kara njaay ni ni dal di xàccandoo di dóorandoo waaw. Ambeur ñu bayal nga nuyo ñu tambi waxtan bi. Ambeur ñu bayal nga nuyo présenté ñu tambali waxtan waaw gannaaw baat onze di mina seytaan rajim dañuy sant yalla rek julli si bi di sant suñu ñaari waajur di sant suñu serigne serigne Babacar Mbacke mu kabaro borom daaru salaam ak gaawaan mu yàgg fi lool te di ñaanal sëñ Cheikh Jëmm Fall mu yàgg fi lool te wér di ñaanal sëñ aboo Mbàkke moom Gaynde Fall mu yàgg fi lool te wér borom dàmm ñu ngi ziar ñëpp di gërëm ñëpp vraiment di kontaan ci invitation bi ngeen ñëw nii euh, jël si waa mafia bi li fi gis loolu la quoi tey dañuy nekk fii nii suba ñu dem diine xamuñu leen lu liggéey xaaj wuñu euh, amul xaaj ak seen waa bi yëpp la ñu woo mafia bi daal képp ku si boole sa bopp rek yaa ngi si biir ndax tëj ñu bunti képp koo xam ne pare nga pour ñëw rek gaa yaa ngi nii kenn yeewul kenn yaay def sa volonté bu bopp xam ne da war a ñëw nga ñëw bokk ci. waaw di ziar Kara bu baax a baax bi nga xamante ni sunu tons la sunu père la sunu lépp la mën naa ne sax lii bu amee ma fa yaay bu amee yàlla ak moom la ndax koo xamante ni mag la moo naa def comme ñeneen ñi ñuy def jàpp ñàmburam xam nga nekk ci wetu soxnaam mais fajar lu mu kii ñu moo ñuy soññ xam nga jël essence am jël otoom ñaari oto ñu ngi fee taxaw chaque jour yóbbu ñu Tivaouane Peulh ak ni mu soree xam nga loolu dépassé loolu mbër mu am combat bu mbër yu mag bu ñu amee combat sax def loolu moom mu volonté wu def loolu kon dañ koy ñaanal yàlla lépp lu mën ren rek bu dee na mën mën lu ko ëpp ndax wax dëgg yàlla ñun jooyetuñu Malick Gakou jooyetuñu euh, Alioune Sall jooyuñu kenn ñun Kara lañ am barke Seydina Mohamed du toogaayam bii nii mais li muy def nii dafa jafe dafa jafe ci nit ak xaalis lu mu saxee ci xol ñi jóge entraînement mu xam ne ñii sonn nañ mu jaar boulangerie bi jëndee mburu yu bëri jox ñu xaalis ne dem leen ndékki xam nga loolu yombul ñu ngi koy ñaanal li mu mën ren rek yalla na mën lu lu ko ëpp déwén ci barke sayidina Mohamed waaw. tambeur tudu nga léegi grand cra mu taxaway bam solo bi nga am ten mu ngi koy taxaw mafia bi def ay sacrifice aussi loolu yëpp pour xalé yi mais bu loolu wesso tamit yow ñu gis tamit sacrifice yi ngay def amo combat di télé yow di ray sa bop di and ak ñom di liggéey lu met lan mo waral sacrifice yoy wa sacrifice bi benn bi pour sama bop la benen bi pour samay rak samay xarit samay dom sax la mëna wax ndax ñu nan ku la jox cër rek da la sonal ndax ñi mag ñom demb la mo li ma wax nekkatuñu ay rak ay mag rak ñi sama samay dom lañ dama jàppale comme samay dom ndax ñom dañ ma bëgg bëgg go xam man bama ma kon du yoon ñom ñu am combat ma leen di sétan ndax man ba nek nekk samay mag samay mag ni leen ma doon defal tay kon jaadu na jekk na bu samay rak amé combat ma taxawu leen di leen ñaanal yalla ba yalla defal leen ndam lii mu def ni sama droit rek waaw motax ma ma koy def am na solo mais bu ñu ñëwee tamit ci ci wax ci yow ñu xool Alioune Seye numéro 2 ñëpp ko xam surtout à travers les Mbapat sa tour ci la gën a siiw sa jaar-jaar Mbapat lan nga ñu ci mën a wax. waaw sama jaar-jaar Mbapat moom boo déggee Alioune Seye bi yëpp foofu la tàmbalee foofu la tàmbalee wax dëgg yàlla carrière Mbapat bu baax laa def bu rafet waaw bëre si gox yëpp Géejawaay Pikine xam nga àll bi fépp laa bëre wax dëgg yàlla def samay preuve ba ñëw ci arène bi ñuy sant yàlla bu baax nag waaw yegg guñ fi fi gars yi yegg mais tamit xam nga ñu ngi sant yàlla daal ñu ngi sant yàlla ndax ñu ngi def suñu preuve mënoo lim ci champion yi ne ci làmb ci te boole woo ci Alioune Seye numéro 2 kon loolu sant yàlla la waaw ndax am na ñoo xam ne suñu moroom lañu woon ñu woon ci làmb ji kenn waxatu leen ñii xam nga ñii nekk ñu ngi si leneen ñun yàlla dogal nañ ñu ngi ci affaire ba léegi xam nga gaara suñu dignité am suñu gëm-gëm te xam ne yàgg-yàgg po bi kenn dàquñu ko bu gis nga li ñuy liggéey fii nii tey dañoo sax maintien barki alxuraan karim liggéeyuñu tey dañoo maintien ndax xam ku ne xam na ne affaire yi nu muy demee bëgguñu leen fee naajal moo tax ñu meññee mais boo ñu fekkoon kër gu mag fële na leen diine nga xam ne ñii caaxaanuñu dañuy liggéey waaw noonu daal la demee liggéey rek liggéey rek lañ xam waaw. mais ci kaw mbapat yooyu ñooy dégg sa diggante ak champion yu bari ñoom tamit sa coow li bëri woon na sa diggante ak ñoom yan champion nga jot a dajal. waaw jamono jooju euh, bu may bëree xam nga boobu xam ngi bëgg a yàgg am na champion yoo xamante ne amoon nañ ñoom yaakaar ci biir làmb ci bu ci mel ni ay ñoom Babacar Diallo boo kooku ñu jàgg siiful mbappat da nga xam ne kooku samp yu bëri fii yi fi yi fi bandi bandi moom defaral na leen daan naa ko daan naa ñu bëri daal du ma fi nekk di cité tour day mel ni kon da nga leen di kii mais ñu bëri daan naa leen te ñooñu bu ñu déggee li may wax nii xam nañ ko même mbëri yi nekk ci kaw nii xam nañ xam nañ nu mu demee daal am na si ñoo xamante ni ñoo bokk benn gox mais jarul cité waaw mais lam mbapat moom bu bëggee dégg-dëgg def naa fi lépp lu ma war a def damaa daan ba doyal parce que Seydina Mohamed champion nga bay sa wax ci mbapat daal di wone sa bop ba ñepp rañe la xam la nga joge fa daal dug ci li nga xamantene moy lit avec frappe ñu tuddee ko bëré arène donc ban année nga débuter lit avec frappe waaw 2005 2005 la dug ci lit avec frappe 2005 waaw sa carrière na la tëdd waaw bari na 17 combat xaw 18 ans ci mu juumul waaw am naa ci 13 victoires ci mu juumul waaw daf may kii moo may xaw a réer rek mais dafa mel ni am naa treize victoire xaw ma quatorze la ba léegi bu ñu taxawee tuuti sa carrière sa combat ak Modou Lo coow li da cee bëri woon trop ñu bëri naan entre Parcelles ak Guédiawaye di leen doon tëkkale combat boobu boo ci revenir itam nan nga doon dundee loolu engouement bi ci amoon. waaw jamono jooju noonu maa ngi Modou dañu fee sësoo ndax boobu moom mi ngi Parcelles di bëri ci mbapat yi man maa ngi fii nii Guédiawaye combat bu Aziz Ndiaye moo ko tëggoon boobu moom mi ngi toj mi ngi toj géej mi ngi toj Parcelles moom toj Guédiawaye ñu boole woon ñu nag mu ne woon combat neex ndax moom moo moo moo àggoon moo àggoon parcelle moom ma ak géejawaay fii ndax dem naa ba mbapat sax pour ma am adversaire boo ñëwee seet ma dama naan la seet dama xool ki nga ki nga may boole dama dama laaj ko ndax nangu naa pare man bu dee ci man rek moom pare naa xam ma dem ba xam ma samay adversaire te xam ci la combat boobu taxaw nag ñu préparé ko nañ doon préparé yenn combat yi rek dem bëree ci la ba yàlla dogal ci lim ciy dogal ñu sant ci yàlla bu baax waaw ndax wane wuñ fay ñàkk jom dañoo bëri ba daanu si biir bëri waaw kon làmm moom noonu la quoi sant yàlla rek ba léegi bu ñu desee sa carrière ñu gis ni jafe-jafe yu bëri na trop quoi parce que tamit ñëpp comme ni ma koy sànq rek euh, kenn naatablewul sa sa sa nekkum ndaanaan ñëpp xam nañ ne aar bi gars yi def kenn dàqloo ko mais jafe-jafe yi dafa bëri quoi lan moo expliqué loolu yoon bi yéex jafe-jafe yi bëri. waaw jafe-jafe bi bëri na bëriwul mooy li may wax rek fekk yàlla mu ngi lay may wér jàppee moo ko sax jafe-jafe xëy na lu war a am ci dundu la rek tardement moom ci métier ci métier yëpp lay am mais du sama yaafuus du sama ñàkk jom du sama ñàkk mën ndax comme ni nga ko waxee léegi rek boudé dee mom mën na ko doy seuk boudé entraînement ken waxaloko suma su samedi dimanche entraînement sax damay melni ku fébar suma ma ñëwul lundi ni day melni duma du ma journée bi kon koku xamné limu wara mu mu ngi koy def mais dafa am lo xamné soko défé ba paré nak li ci dess mom ci loxo yalla la nekk ndax à chaque fois bo gisé sama combat damay préparer dama ba damay damay melni ku fébar damay ñëw ci combat bi joxé limu am yépp mais li jam di bëgg ak li yalla dogal mom xam nga dafa dafa outé man fofu la tek sama mbir rek xeyna app bi moo jotagul rek mais ma ngi sante yalla bu baax maa ngi sant yàlla baax mooy li rek doo fi tudd champion yi te boole woo ma ci kon loolu sant yàlla la maa ngi bay sama waar rek te xam ne jën jeexul géej moo yaa fa yeggagul rek bu loolu weesoo ñu gis ne aussi sa carrière dafa am combat yu bëri ñu bëri da nga jël ñu bëri ne waroo ko woon jël ñi naan tamit Alioune Seye 2 encadrement bi dafa des coow lu bëri ci trop da jóge ci ndam mel da ngay jël adversaire boo xam te mën nañ ki nga a li gën a indi sama tardement loolu ci la bokk beneen bi adversaire yi eh, xam nga di di di taamu ndax gars yi lu yomb la ñuy wër bëgguñu combat bu métti di la wër ne soo jëlee Alioune Seye numéro 2 même boo koy daan di nga ñandu euh, fomp sa taat loolu xam nga neexul 2005 ba léegi boo xoolee def naa ci ay 6 années balance 2005 ak léegi boo ci génnee 6 ans wala 7 ans yoo xam ne bëri woo day mel ni kon yow boo bëlee yaa ngi ci làmb ji day dèjà def naa année balance 2 ans bëri benn at. ren yi mooy sama deuxième année balance suma suma suma suma su ma ma amul yaakaar bu baax su combat ñëw ren damay amaat damay amaat deux années balance sa carrière ñu bëri dañ naa yaakaar ne ba bële yaa ngi ci làmb ji di bëri di bëri di bëri di bëri te fekk na bëri benn saison benn combat ay combat huit mois loo xamante ni ñii fayee ko million sax duñ ko bëri xam nga bëri benn benn benn benn combat ci at bi toog deux ans bëri woo bëriwaat beneen combat ay fin saison toogaat beneen année bëri woo loolu tamit taxu ñuy wax te loolu yëpp adversaire la dong ñoo tàppet ragal bëgg lu yomb bëgg loo xamante ni maanaam day volume ñun ñun lii lañ xam liggéey lu wow lay koŋ koo mbëkkanteel moo xam ne kii am na lu mu liggéey mais gars yi bëgguñu loolu gars xam na lañ bëgg kuy raayanteeg ñoom cokkaas daw yooru wala ñu laal la nga palaake la nga nga xool fooy tëdd moo tax ama affaire yi dëgër loolu dong la du leneen gars yi ñoo ragal bëgg lu yomb barki Seydina Mohamed looloo looloo yëxal carrière bi li ma la wax nii xel nangu na ko wala nanguwoo ko bëre benn at toog ñaari at bëre woo bëre beneen at ci fin saison toogaat beneen at bëre woo loolu boo col boo calculé temps bi day bëri te li sa combat du bëri loolu dong la bi may doog a débuté dama doon bëri trois fois ci ci ci saison bi mais da dem ba léegi ci presque ci at yi mujj yëpp ay benn combat ngay bëri ci at bi. bëre benn combat ci at bi toog deux ans bëre woo wala nga toog benn at bëre woo bëriwaat beneen combat toogaat ñaar at bëre woo tamit neexul quoi mais sant ko yàlla bu baax nag ndax boo bëlee mu ngi ñëwee wér tooguñu tàllaluñu loxo kenn ñu ngi suñuy ginnaaw grand yu baax yi ñi nga xam bu ñu amee combat bu ñu amul combat ñu jàppale di sant yàlla bu baax daal waaw tardement lu tardement ndax ñu ngi am wér wér rek alal la ñuy sant yàlla bu baax wax nga léegi ba tudd année blanche te ku ne xam ne année blanche moom dafa metti nga def ko lu toll ak nga ni deux ans wala trois ans durant sa carrière euh, te nga nekk mbër aussi waaw ëpp na trois ans mën nañu ëpp na ko sax nga nekk mbër toog di liggéey xam nga di liggéey lu metti wàllu alimentation bi wala nekk sa boobu loolu yëpp tout tout un investissement kon côté koppar bi ñu lay jàppale ci investissement nan ngay dundee sant yàlla rek mooy li la wax rek am yoo xam ne dañuy jàpp te yàlla tax xam nga karaam yi nii ñii muy jàppale amul ku ko ci jox cent franc kii dafay jàpp rek te soxlu ku koy gërëm lii ñuy def nii sax dañ ko ko forcer pour mu def ko kon dañoo am ñu bëri ñoo xamante ni dañoo mel ni euh, grand karaat di volonté wu di jëf si ñun loo xamante ni xaar ñu ku leen gërëm wala xaar ñu am combat am ñoo xam ne bu ñu amee boo amee combat rek lañ lay jàppale mais xam ne dañ lay jàppale te yàlla tax boo amee combat boo amul combat yëpp da leen gis sa wet ñun genre wu lañ am ku ci mel ni Matar Cissé ñu ngi koy félicité euh, kooku sama parrain la bokk kooku sama tons la ñu ngi koy félicité bu baax ci ministre bi ñu ko fal noonu di ñi si jàpp bëri nañ ku mel ni mairie Gounass béy di béy ba euh, kosom xam nga andaw pap mamma xam nga ñi si jàpp bëri nañ daal grand Zal Dieng ñoom Cissé Jarga Biteye ñoom Mali Biteye sama gaay yëpp xam nga ñëpp dañ ciy jàpp moo tax sama grand frère alam ndaa lu jiit njaagama mooy njaag ndax wax dëgg yàlla moo am Mohamed Dial bu fi jëlee ci combat boo xam ne dañ naan nii ak naa bul namm dara loo namm xam wax ma xam mooy loolu daal maa ngi sant yàlla bu baax daal am na ñoo xam ne ñu ngi nekk sama ginnaaw moo tax soo ma gisee da ngay yaakaar ne waaw mooy loolu mais sant yàlla daal sant yàlla ñeewu ma kenn maa ngi sant yàlla bu baax. Ah, champion ñu gis aussi nii tamit durant sa carrière mosu ñu la gis nga génn dem à l'extérieur daal di entraîné ji ba gis nañ champion yoo xam te ne aussi sax bi ñu commencé làmb yàggul mais dañuy faral di génn dem liggéey ñëwaat euh, boobu ba léegi ñàkk a génn bi dafa doon loo xam te ne yaa ko bëgg wala da ngay def ay démarches antoogul. waaw du question de maa ko ñàkk bëgg mais loo gis rek day am uh, ni ngi koy waxati day am app ak tamit mu jot rek mu mu yomb yeen saa yi nga bëgg dara mu jafé lool yeen saa nga bëgg dara mu yomb lool xeyna ñu ngi koy bëgg mais dafa antogul mais ku sañon tamit bo amé combat dem préparer fi sa morom di préparer ñew xam nga def li ngay wara def mais ñu ngi sant yalla ñu ngi ci démarche yi xam naa rek inshallah allah won sa combat ak doomu dangu fan nga ni toll. waaw combat bobu nonu promoteur bi waxon na ci ak ñun xam nga ba ba tënkoog ñun mais ci promoteur bi daal la desee boo bëggee léegi dëgg waaw ndax mu daangu nangu na maam joxe woon naa sama accord te nit kàddoom rek la am mais fu mu ne nii moom ci promoteur bi la taxawee moom waaw taxaw moom nag di xaar combat boobu rek su ma gisee beneen combat ma koy bëre ci kàttan yàlla waaw ndax nit moom kàddoom la am wax naa ko jox ko mu wax jox ma dama la dégg léegi say kàddu ngeen dootoo jël combat boo xamante moom du la yóbbu fenn lan moo tax kon nga choix bi nga porté ko ci doomu dàngu loolu moom ci kàttanu yàlla su mu fekkee ne nar naa jël ci combat boo xam ne du ma yóbbu fenn ma dem jaayu konkorom wala keew barki Seydina ne ndax neexul tamit neexul nga yëngu ci benn affaire xam nga benn benn temps bi te doo sentir sa bopp neexul nit ku nekk booy booy booy dugg ci benn affaire da nga ñaan yàlla avancement mais doo ñaan yàlla comme yaa ko wax léegi dem xam nga dem ba ci kaw di retourné di jëlaat ñeneen ñi am na loo xam ne sax xel du ko nangu am na yu combat yoo xam ne dama koy jël mais suñuy supporter sax duñ ko nangu mais comme li ma la wax léegi rek mbër yi sàppet yi ne ci arène bi di tàmmulu nooy yi yeeg yu yomb yi ñoom ñoo waral loolu ndax da ngay toog comme li ngay wax léegi toog année balance dafa metti te mu wóor na ne kii boo ko jëlee sax di nga am benn weccet boo xamante ne di nga ci mën a suturloo xam nga jàppale waale ko ci loolu la woon mais léegi set fois ci moom loolu jeex na combat boo wax ne da koy jar ñu bëre yàlla ñu ci ndam ñu am avancement waaw waaw combat bu jaar la ndax mu ngi def ay preuve am bu dëgg yàlla mu ngi def ay preuve mu ngi bëre di daan xam nga daan na fi ay champion waaw jekk na ñu jël ko xam nga wanewaat leneen beneen affaire rek loolu la quoi mais bu làmb waxoon dëgg rek waruma bëre doomu daan mais sant yàlla sant yàlla mbër ñu gis aussi bu ñu ñëwee ci écurie bi écurie Waalo ren ni ngeen entamé saison bi dafa xaw a bëri ay ay ay safaan quoi boo xoolee ñu doon xaar ñu bëri ko ci mel ni Papa Boy Djiné ak euh, Alioune Sèye Junior dañoo daanu lan moo waral tamit ngeen loolu noo jàngatee loolu quoi début de saison bu xaw a doy waar bi. waaw non sant yàlla rek mais ñu ngi bëri di daan nag booy booy am nañ am nay victoire am nañ victoire boo xoolee ñaar defet yooyu rek lañ fi am euh, ñaar defet yooyu lañ fi am waaw ak ak quatre victoire xam ne kon xam nga mi commencé neex quoi fi mu ne nii presque booy fi nekk yëpp ñoo am combat cas dundu xam nga Modou Mangara seex euh, Super Jamono Pape taal euh, Talbe Cheikh euh, Mbay ñëpp am combat kon ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla nañu cat seexlu di ñaanal ñëpp képp koo xam ne ma fi yaa yaa ngi ci am combat rek yàlla defal la ndam lu seddu guy mais niñ commencé moom wax dëgg yàlla neex na waaw sant yàlla rek deux défaites yooyu noonu xëy na loolu sarax la sarax la mais du seen cuune wala du seen ñàkk jom bëri nañ ci fulla yàlla moo dogal seen daanu ñu ngi ñaan yàlla defet bi yem foofu noonu di leen ne leen ay xale waaw beneen yoon ay dàq incha allah. ci kaw loolu ma taxaw tuuti parce que ñëpp gis nañ anam yu mu ñàkkee coow li bëri euh, ba euh, observateur ñu bëri ku ci mel ne Ablaye Dembélé bi mu waxtaanee moom mbir dafa oyof trop dafa war a yokk volume bi yow looy tontu ci loolu. waaw boo daanoo moom boo daanoo yaay raw pôlu mbalit mbëbës laa yox sax yow yaa koy raw ndax tey soo daanoo rek yow yaay ki manqué entraînement yow yaay ki xamul dara yow yaay ki ragal loolu ak làmb ñoo ànd ku nekk li Tyson doon wax rek coach yi dañoo bëri ci football beeg euh, kii bi boo daanoo moom doo am lay boo daanoo luñ la wax rek yow la mën nga ñëw bëri bëri bu metti ñu dóor la ñu ne dafa ragal wala ñu ne kii ñu ne dafa ñeme ñemul entraînement te yàlla xam na ne xamuñu fa ngay xëyee fa ngay gontoo mais Alioune Sèye Junior dafa entraîné ba ba oos mais jël moo moo lamb moo deme noonu rek ñëw lamb ji mu gaawee noonu ku ne nag di nga ko gisee nu ne ne ñu ngi sant yàlla ñun xam nañ moom li mu liggéey ñun ñi nga xam ne ànd nañoo moom liggéey xam nañ li mu liggéey xam ne lamb ji mu ko jaraloon ndax moom ba muy jël mbéy gi waru ko woon jël mais lamb moo moo toll foofu noonu ñu koy sant yàlla rek di ko ñaaxaat moom tamit ne ko mu gën a góorgóorlu rek yokk entraînement yi mais du tuune moo tax lamb ji demee noonu waaw sant yàlla rek lan ngay tàggatoo sa kàddu gu mujj ak ban message ngay lancer à l'endroit de la population sénégalaise. waaw sant yalla rek di santat Kara ndjay bu baakha baakha baakha baakha baax ak Grand Lamine waaw kok ci mafia la bokk ñom eh, ki waaw as sunu sefeur bi nga xamanteni wax deug yalla as sunu sefeur bi nga xamanteni mo yor benen auto bi. mari dañuy son sax mom du son amna lu muy laal nak sax jour mu wax ko lu muy laal adamu ana as mo ngi ni borom makhane bi ni mari dañuy bàyyi sax te du bàyyi wa ñoom Ibou ñoom kànju góor a xam nga képp koo xam ne yaa ngi ci mafia bi rek mafia ne ëpp na lii de barki mi ñu ñëwu sax ñoo ëpp ñu ñëw nii mais dafa am yoo xamante ni dañoo bëri semaine bee passé ñii noppalu xam nga ñii ne ci ay bagage mooy ñoom gàkku déew ak xam nga ñoom caat bu waaloog ñoom ñoom ñoom macca ñoom ñoom moom fils de Balla gaa yëpp ci mafia bi lañ bokk képp koo xam ne ñoom Baye Ba Ndiaye numéro 2 ñoom Mbaye Tine ñoom Maguette Seck ñëpp ci mafia bi lañ bokk xam nga ñu ngi siyaar ñëpp ñoom Pambaay ci mafia bi lañ bokk ñëpp ñu ngi siyaar ñëpp képp koo xam ne yaa ngi ñëw ci mafia bi rek ñu ngi lay siyaar di wax ne mafia bi tëj ñu punt yi pour géej waa géej waay la képp koo xamante ni yaa ngi santi sa bopp ci mafia bi rek ñëwal ndax ñun xam nga nday ji seex lañ jaaxaanaa lañ tëddee bu doon loola rek benn oto doy nañu ñun ñu dëkk côté bii nii ndax benn oto lañ déparé yàlla di dem ba ñëpp di ñëw ñu yokk ñaari oto dañuy ñaan yàlla bu ñuy dem sax ñu teg ñëmbat gars yi di dem ñuy sant yàlla bu baax di sant waa géejawaay yëpp képp koo xamante ni yaa ngi géejawaay rek di doomu géejawaay ñu ngi lay sant di sant suñu coach Arouna Sall ki nga xamante ni wax dëgg yàlla guddeel nañu bëccëgal nañu xam nga di sont ñun liiru jaan ñu ngi koy sant bu baax Abdou Diouf xam nga di ziar ñëpp di ziar ñëpp école de lutte Balla Gaye xam nga euh, euh, Mor Fadam Jimbori euh, Papa Kane xam nga école de lutte yi nekk géejawaay yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen wax ne mafia baa ngi nii tëj ñu bunt yi di ziar ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne Kara Ndiaye yal na ko yàlla may wér may ko gudd fan xam nga mu dund daal ba fekkee suñu njëriñ ñu ñëpp waaw di ziar ñëpp waaw waaw bokk indonot yi loolu moo doonoon waxtaan bu am solo bi am ten seq nañ ko ak le grand champion Alioune Seye numéro 2 Euh, voilà ñu daal ñëw fekk ko ak mafia bi daal di yaatal ak moom ci lu bëri waaw comme ni mu nekk ndaanaan boo xam te kenn door ko présenté euh, mu doon aussi nit koo xam te ñëpp naw nañ ko képp kuy dund làmb daal tey boo buñ gisee anam bi mu doon liggéey ak ay mu doon une décision renseignement comme ni ma faral di ko waxee xanaa di sant rek les fidèles internautes ku ci mel ni grand alam bu Espagne Baye Góor bu Espagne euh, Maale Sané di sant aussi euh, Boubacara bu France euh, di remercier aussi les fidèles internautes du ma fàtte aussi suma technicien l'incontournable Bekay Koundoul merci